professeur Adams Tidjani. yi ngi lay nuyu di la dalal. mag ngi lay maa lay fay. Euh, ngay directeur institut métier de l'environnement ak métrologie bu UCAD euh, euh, ñu dooree ci rapport bu groupe expert ONU jëm ci climat tey ñu am ay jàngat yi nga xam ne firndeel nañ ko ba tax na ci xayma nee nañu li jëm ci yàq couche bi wala yi ni mel maanaam ci environnement fii ak 2030 boo mayul dinañ ci egg nu mu gën a teelee ci estimation boobu ñu joxe réchauffement climatique politique bi tey jàngat gi lu waral ñu àgg foofu tey. waa euh, pour waxante dëgg rek nit ñi xamoon na ne après la COP vingt deux vingt et un ñëpp xamoon na ni euh, <clears throat> comment dirais-je taux de un virgule cinq mm-hmm. mm-hmm. man yaakaar naa ne ñu dem ba deux du ñu euh, prévision yi dafa waxoon ne nag. et deux degrés yi un virgule cinq degré yi nañ ko atteindre en deux mille quarante mm-hmm. mais euh, gëstu yi wane na fii ak deux mille trente euh, planète bi dina dem ba un virgule cinq degré mais yaakaar naa ne dina dem deux degré loolu mm-hmm. ko parce que euh, mbir mbirum COP 21 mm-hmm. moo demewul noonu ñii dañuy wax mais jëf bi defuñu ko ba nga xam ne ne tey mënoon nañu yaakaar ne euh, tendance bi dina inversé ba nga xam ne ne température bi dina stagné wala mu wàññeeku. donte du gaaw waaye am na lu ñu nemmeeku ci jamonoy mbas mi première vague euh, rawatina ba mu dooree xam nga ku nekk euh, confinement bi dañ ko amaloon ci dëkk yu bëri maanaam arrêt ci presque secteur yëpp li ni mel mu am ay njeexital ci lii di environnement bi ndax euh, tamit li nga wax euh, mënuñu koo nattee foofu. waaw sa dëkk dire que mbas bi. Mhm. Euh, indi na économie mondiale bi wàññeeku. te économie bi industrie industrie bu ñu wàññeeku seen activité. Mhm. émission yi day wàññeeku. mais xam nga du parce que tey dafa wàññi émission yi rek que tey ji di nga yaakaar ne température yi dina dina wàccaat dafa mel ni oto oto boo xam ne ni mu ngi daw. Mhm. boo ko fayee day continuer daw moom la ñu woowee cinétique donc augmentation température bi c'est processus boo xam ne bu commencé. Mhm. du parce que taxawal nga sa oto rek te bi taxaw. Mhm. day day continuer yéeg te après mbas bi gis nañu ne quelque temps après bu activité reprendre gars yi ku nekk dafa ne ah xaaral ma dabaat lu nu ma rawee woon di produire tout azimut. Mhm. donc finalement du ñu am lu ñuy woowee alchimie maanaam. Euh, période boo xam ne duñ dalu. Mhm. mais après ñëpp xa gis nañ ni euh, donc ñëpp gis na ne affaire bi demaat na parce que euh, gars yi <laughs> seen bopp rek dañuy xalaat nañu waxante dëgg réchauffement climatique bi ñu bëri ñu ngi ne waa c'est bien war nañu ko def war nañu xeex loolu. Mhm. mais tey jii si bëri seen bopp rek dañuy xalaat. xalaat xalaatu xalaatuñu planète bi. ñuy waajal COP 21 mu daanaka weeru novembre lañ koy amal euh, ca Royaume-Uni ndax alerte bi euh, mën naa am mu soppi leen ci seeni i décision yi nga xam ne dinañ ko jël euh, ci yooyu les waxtaan yiñ fay amal. ah wóoruma de parce que boo seetee boo seetee tey xoolal boo déglu information yi. Mhm. Chine yëg na ne affaire am na. Mhm. et Chine. ñu ngi dawalaat seen centrale seen centrale euh, au charbon. Mm-hmm. ñu ngi ñu ñu ñu ñu ngi koy yóbbuwaat donc ça veut dire que finalement nit ñi gëmuñu lu ñuy wax dañu wax ne def leen nii wante ñoom seen wàllu bopp defuñu loolu te dañu waxante dëgg tey di jànkonteel yi ñu am au niveau de la planète pays développé yi ñoo ñu ko def est-ce que pays développé yi ñoom seen wàllu bopp ñu ngi soppi seen jëfin li ñuy comportement je pense que changement bi ah très sceptique tey professeur bu ñu eggee ci sëy boobu nga xam ne ñu ngi koy artu muy sëy euh, plus un virgule cinq euh, degré bi lan mooy xew ci conséquence ah conséquence ñun au niveau de de pays des pays africains par exemple boo jëlee Sénégal euh, avec bu ñu jëlee uniquement élévation niveau de la mer parce que tey jii euh, au niveau de l'Antarctique xanaa amee fu amee glace bi mhm. tey jii température bi yokku na de dix degrés par rapport à la normale tey actuellement huit milliards de tonnes de glace ñu ngi sey alors que normalement en temps normal quatre milliards mooy mooy ça veut dire quoi ça veut dire que niveau de la mer bi dina yokku donc ñun nañu bàyyi xel ni suñu côté puisque on est au bord de la côte dëkk yu nekk ville yu nekk au bord de la côte yëpp ñàkkul ni ndox bi léegi mu commencé yéeg au niveau de euh, de la côte ñun defoon nañu ay simulation ay augmentation du niveau de la mer de dix mètres ak de cinq mètres mm-hmm. euh, lu nu gis ah dalul xel de ay ville yu mel ni Dakar eh, bu nu yàggee ndox bi Thiès Thiès Thiès Thiès la jëm de. Dakar Dakar risque de disparaître Ziguinchor wax noppi Saint-Louis n'en parlons pas donc on a une dafa dafa am na menace bu bu bu bu te je gisuma état bi jël ay matuwaay justement pour contrer cette éventuelle Euh, élévation du du niveau de la mer. Euh, nga wax ay exemple Sénégal mu am lu ñu nemmeeku lu mel noonu euh, ci yenn dëkk yu nekk bitim réew muy inondation yu bëri mbaadu loolu ci conséquences yi la la bokk. absolument ñun kay inondation yi mooy suñu njëkk suñu suñu problème mu njëkk réchauffement climatique bi aussi et ressources naturelles yi maanaam muy jën yi ak yooyu mu nañ ko ñàkk tàngoor bi yokku. déjà fii nu suñu dëkk bariwul garab euh, as tuuti bu nu am mun na lakk et cetera et cetera donc nanu jànkonteel ay ay jafe-jafe jafe yu métti mhm. bu nu defee ndànk ba tax na ci artu googule euh, ki nga xam ne mooy secretaire général Nations Unies moom euh, nee na euh, comme solution ñu bañ a amalati ay centrale à charbon fii ak deux mille vingt et un jeex bu jeexee ndax li ni mel tamit buñ demoon ba koy appliquer Sénégal dina àgg foofu ak maanaam àggandoo ak yeneen dëkk yi. waaw mais xam nga gars yi général wax na. mais tey ji boo seetee. Hmm. Chine centrale à charbon yi mu taxawaloon. Hmm. mu ngi koy redémarrer te ñëpp xam ne centrale à charbon moo gën a bon si réchauffement climatique. Hmm. Chine lu tax Chine du taxawal centrale à charbon te boo seetee àdduna si ñun nii pays sous-développé yi suñu émission gaz à effet de serre maanaam du ñu ñooy responsable wante daañu yu bon yëpp si suñu kaw lay dal. fii nga gis Sénégal bëgg a def centrale à charbon banque mondiale FMI ne leen du leen financé. Mhm. chinois yi ñu ngi def seen centrale a charbon kenn waxu leen dara boo leen waxee ñu leen ah ñoom ils sont pas responsables du réchauffement climatique Amérique Europe ñooy responsable ñoom dañuy développpé d' abord bu ñu ne eggee niveau développement Europe ak États-Unis ñu doog xool ñu ñuy wàññi seen émission de gaz à effet de ñoom seen projection zéro carbone ñu ngi koy projeté pour deux mille soixante yaa mm-hmm. euh, loolu yëpp il faut quand euh, comme comme lu ma la ko waxee sax euh, ñu déggoo c'est boo jëlee orchestre orchestre ku nekk dafa war a tëgg lu mu war a tëgg. Mm-hmm. maanaam dafay jouer partition mais bu ko xam ne ni dafay def lu ko neex musique bi mënul neex. loolu dama yaakaar ne il faut que ñu ñëpp mais ça aussi suñu négociateurs africains yi il faut que africains yi aussi ñu mën a yëkkati seen baat. Mm-hmm. ban nangu tubaab bi lu mu leen wax rek gars yi nangu ko parce que ñu ngi dynamique boo xam ne ni ñu ngi foofu noonu noppi euh, as tudd xaalis bu ni may ay fonds vert ak yooyu du loolu may kii il faut que ñu dem xalaatal suñu bopp nu nu mun changer suñu développement moom laay waaye la trans transition socio-économique ah suñu économie méngoo ak suñu ak ak ak ak suñu environnement mm-hmm. loolu mën nañ ko def am nañu possibilité def ko mais loolu c'est une politique générale de l'État kon tey ban dëkk moo gën a euh, def pollution ci àdduna werngel képp ah États-Unis bon parmi contre kii États-Unis ak ah, Europe yi les premiers. waxaat ci bés bi ñuy màggal garab ñu euh, màggal ko le premier août gi ñu wees euh, doon ci waxtaanee Sénégal euh, naka la ñuy defaraatee suñu suuf ba ndaw yi mën cee liggéey mu doon tamit li nga xam ne dinañu mën a amal bay dund ndax jàpp nga ne reboisement mooy mën a defaraat suñuy suuf. solution la mais xam nga benn solution rek amul. mun nañu wax ne reboisement bokk na ci solution parce que saxal garab amul lu ko gën. amul lu ko gën ginnaaw garab non seulement dina dindi réduire dina absorber co bu nekk ci jaww bi. mais ensuite dina tax mu am taw bu bare suñu dëkk loolu mooy benn. Mhm. ñaareel bi garab bu bare ñu ñuy woowee biodiversité maanaam lu ngay lekk. Mhm. lu ngay jël pour faju yooyu yëpp day gën a bëri. Mhm. te xam nga yooyu bu bëri euh, nit ki ñu ñuy woyee bien-être di nga am dund bu neex comme nu ñu am lu ñu amoon à l'époque suñu agriculture ay ay mille neuf cent soixante jamono neexoon na. Mhm. ñu amaat euh, kii mais du loolu rek mooy tax ñuy mën a euh, développer il faut ñu xalaat yeneen secteur yu nga xam ne ne ñu mën a méngoo ni mu la ko waxee sax économie bi ak écologie bi tey jii par exemple boo jëlee eh, en terme de bu ñu changé wul comportement par exemple boo jëlee exemple BRT. Mm-hmm. BRT mooy lan mooy train bus yoo xam ne day wàññi émission co bi. Mm-hmm. est-ce que yow man keneen nangul nañu jël BRT bi bokk ko ak ñoo xam ne dinañ néew doole. Mm-hmm. tey jii boo demee ay Paris ñëppay jël métro. amul borom xaalis amul ñàkk xaalis. parce que métro bi aw na yoon. Mhm. il faut que ñu egg situation boobu nga xam ne ni ku nekk Sénégalais bu nekk mu dugg si BRT bi dem di liggéey wala doxu soxloom du am benn jànkonteel et cetera. Mhm. loolu moo am solo loolu ñu mooy transition socio-écologique il faut kooku ñu dugal ko suñu bopp changer de comportement mais changement de comportement bi nag il faut ñu commencer ko depuis le bas âge depuis bu nekkee xale. Mhm. xale bi màgg ak loolu boobaa mën na ni yaakaar ni changement de comportement dina am si dëkk. professeur jeexaleeg masque yi euh, jamono ji gis nañu cas Covid yi ni mu yokkee ci mim réew ñi ñi delluwaat ci masque yi donte bàyyi woon nañ ko benn jamono li ni mel euh, tamit buñ ci paree ñu gis ne mbedd yi tamit bëri na ay masque mu wone ni euh, ñu ngi koy sànd ci mbedd yi lan moo ci conséquence bi. waaw xam nga ne conséquence xam nga masque yi plastique la. conséquence bi mooy yokk déchet plastique bi si jaww hmm. donc mais nit ñi am na loo xam ne xamuñu ko euh, ay études wane na boo jëlee benn masque mun nga ko fóot vingt fois maanaam efficacité bu mu amoon bu mu beesee même efficacité bi lay am maanaam nit ki mun na jël masque ngoon bu jotee hmm. mu xooj ko raxas ko weer ko suba lendemain bu xëyee mu solaat même masque bi kooku mun na ko def vingt fois xam nga kooku bu ko ñëpp defoon di ñuy wàññi déchets yi nii jaay yi ñuy fes ci coow bi xam naa lool nag du neex suma suma su mbokk yi jaay masque yi si tali bi parce que day wàññi seen seen seen chiffre d'affaires hmm? mm-hmm. waaw mais xam nga aussi il faut que ñu xalaat aussi ñu mën a def benn euh, comment dirais équilibre entre préservation environnement bi ak euh, le volet économique je pense qu'il faut que Sénégalais yi yeewu xam ne ne masque bi mën nga ko fóot fóotaat ko une vingtaine de fois c'est pas parce que fóot nga ko te lay yàqu te am même efficacité kooku benn étude moo ko wane. d'accord sur le plan dégradable comme ni nga ko waxee boo ko utiliser lu ëpp maanaam euh, lu bëri yoon ndax dina wàññeeku ci yàq gi muy yàq. non du du wàññi non mais dina wàññi volume déchet bi. Okay. parce que yow tey jii. Hmm. bu fekkee vingt jours yaa ngi utiliser chaque fois benn masque bu bees. Hmm. sànni vingt masques si si si mbalit bi. Hmm. alors que boo jëlee masque bi di ko raxas vingt jours. en vingt jours benn masque rek ngay sànni. ngay sànni waa donc da ngay wàññi da bi. te xam nga du ñuy bu ñuy wax environnementaliste environnemental déchet boo ko mënul Euh, bañ a produire. Mm-hmm. da nga koy da ngay wàññi. tu vois kooku ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup.